Assalamualaikum mbokk yi ñew na ci xex bi may xex tay nak fi may ñew ci gi nga xanti bi jàll nak jàmm ak salam bim jalle nak da dafa bàyyi ciow ciow lo xanti bi seigne mustapha si moko wax ciow lolu nak man duma ci dugg duma dugg ci ciow lolu mais da may deltu ci gannaaw rek biñu magal gi saay-saay si nga xamante bi dañuy mbubboo ne ay imaam lan faux imaam xalifa bakar Ndiaye bi nga xam ne ab saay-saay la imaamu faramason la imaamu góor jigéen la li mu fi waxan ak faux activiste yi nga xamante bi dafa am bu ñu bokk dañ leen a ngemb ay saay-saay ay faux imaam ñoo leen ngemb ak faux ak faux ak faux ustaas ñiy saaga yoonu morit saay-saay sosu nag bi ñu jub màggal gi am na luñ daan wax di ko di ko di ko teg ci yoonu morit kon foofu laay ñëw waxtaanee kook sénégalais yi sénégalais yi bàyyi ci xel su ma waxee sénégalais yi waxuma ak saay-saay si waxuma ak naafiq si waxuma ak faramason yi waxuma ak góor jigéen yi waxuma ak faux activiste yi xam dañuy booboo ay patriote lan dañuy booboo ne Sénégal lañuy xeexal te Sénégal ñuru leen bëgguñu Sénégal bëgguñu réew mi ay saay-saay ki naafiq lan góor jigéen yi lañuy xeexal ak faramason yi bëgguñu réew mi gëmuñu réew mi ma tegal leen benn faux imam Khalifa Ababacar Ndiaye imaamu faramason imaamu góor jigéen ñi soog a ñëw ci waxtaan wi tegal leen yeneen quelques vidéo am nga euh, jamono ji ak mbas mi euh, ndaje diine buñ ko waré amal nan lañ ko wara mëna amalé ak tamit ban taxaway la nga gis ne ko mo la ci sama xalaat man personnellement daje diine yépp lañ warona dag arrêté ni ñu arrêté lépp mais dafa am lu benn kilifa wax muy Serigne Bay si yalla yàlla yokk leeram dafa taxaw ak Diouf sar ne ko da nga na daw responsabilité daw responsabilité wessul ni et dama lay waxal benn affaire da nga xam ko ëllëg yowmal mal xiyam Macky Sall mi taxaw président Macky Sall la yalla di taxawal ne ko loo yore won Sénégal du ko laaj kenen mais lan la mu yilif ñep loraange bu bëggé dugg ci réew xolal bul xol gauche xol droite bu ko bul bayyi ñi tañ ci ñëlé même sax taxaw naan bon ubina bunti lu neex way na def kenn ku nekk na dem ak conscience am du nonu kenn du jité rew nonu bu doon Abdou Diouf la jamono yi ñu toll. Bakian kenn takk fi rajo xalaatoo ko te et amna lo xamanteni dina mayu la nga bëgg forcer leneen luddul dul diine mais nañu delo ci wat suñu xel. ñoko deggando ñoko deggando fo imam bi ñoko deggando ñoko deggando mbokk yi yaakaar naa ne yàlla suñu borom moom day àtte ñu xeexul màggal gi jàll na ci jàmm ak salaam noonu yooyu noonu suñu yooyu nga xamante bi ñoo ngi yoroon seen seen seen seen sot seen ab socc pour màggal ga jàll ñu ne coronavirus bi ma ngay law camp yi ñu ngi gën di yokk yaakaar naa ne bañ màggalee ba ba léegi de dégguñu fenn ñu ne camp yi yokku nañ day gën a wàññiku kon yàlla musal na suñ Tuubaa foofu yàlla musal na yoonu murit foofu kon ñu ngi filist ñu ngi santaat suñ borom di gën a eh, yeesal suñu njëbbal suñ Tuubaa di sant yonent yàlla mu Muhammad mi nga xamante bi suñ Tuubaa moo ko doon ci moo ko doon ci fu ne ñu ngi koy dollee sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñu tegal leen nag gàmm gi ñu tegal leen gàmm gi bu ñëwee tegaat leen fu imam boobu ñu tegal leen ñu tegal leen gàmm gi sëñ Moustapha Sy sëñ Moustapha Sy waaw kon imam bi yàlla rusloo na ko foofu fi mu toll nii boobu sa waratut a génn rajo yi di wax kan yokkut de ci lim naan bu den bu den kii nag bu den jamono Abdou Diouf kenn du takk ko rajo loolu day kàcc moom si boppam bu làmbee taatam woowu dana xam ne aw dayang ca dafa kàcc moom xalifa foo imaam xalifa Ababacar Ndiaye ab saay-saay boobu ñu diglu ñu diglu sëñ Moustapha Sy bu tegaat tegaatal imaam bi Serigne Mbaye Sy Mansour bii dafa dem dëkk bu nga wax Palmarin fii ci Mbuur am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg surtout Serigne Babacar Sy bu mu ci kaw suuf ci moment boobu waaw ñoo ko déggandoo wax boobu nag man lu ma ci dugg man du ma dugg fu ma xajut mais tey fekk na lii ci murit benn ab murit kilifa mbakk mbàkk moo ko wax ci yoonu murit yàlla xam na ne tey morit du dutuñ am jàmm foo imaam yi ak foo ustaas yi ak foo activiste yi saay-saay soosu nga xam ne yoonu murit lañu bañ ay saay-saay lan bëgguñu Sénégal bëgguñu réew mi bëgguñu Sénégal bëgguñu réew mi tey kon murit duñu am jàmm kon suñ Tuubaa moom yaakaar naa yàlla moo ko aaral boppam yàlla dafa aar diine ji aar suñ Tuubaa loolu moom lu wéer la mu indiwaatal leen imaam foo imaam bi Xalifa Ababacar Ndiaye bi nga xamante bi nee na tarix yëpp bokkuñu yem yàlla suñu dégg-dégg bu ndaw mooy yàlla la benn. boo weesoo yàlla. après yonent bi foofu la ñu bokkoo ñu ñëpp. muy yàlla mooy ñun ñëpp benn xëy na taxawaay beeg trajectoire yi doxal li mooy wute waaye finalité bi bee benn lañu foofu la ñuy waxee. waaw Papis d'accord naa ak yow ci loolu nga wax. mais tey bu ñu taxawee ci rajo bu mel nii ak télé bu mel nii. ñëpp àdduna bi yëpp di ko déglu. ñu ne tariixa yëpp benn la. mais su boobaa mu doon erreur. parce que am na ñoo xamante ni te am na ñoo xamante ni du mën a tarixa sax dunduñu ci dunduñu ci li yàlla wax dunduñu ci li yonent ba la jaar nañ ko ñooñu loo wax da nga naan ñi ñi ñiy yeesal seen def ko ci lu ak lu set ñoo bokk yam mën ñu yem moo tax ma ni xamante ni débat bu gudd la boo xamante ni tey bu ñu toogoon ñu décortiquer ko mais bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. suñu wér bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. parce que suñ Tuubaa li ma li ko yàlla may moom ñëpp ko bëgg mais mënuñu koo am ma tegaat ma tegaat leen nag suñ Moustapha Sy mu ñëw tontu imam bi. sëriñ Mbaye Sy Mansour bii surtout Serigne Babacar ci kaw suuf léegi nag imaam imaam Khalifa Ababacar Ndiaye waxal ci lii nag waxal ci lii yaakaar naa ne tarix yi nga doon wax de foofu foofu la amee nag tarix yi fi nga doon wax fi nga bokk foofu la amee ci yéen seen biir yéen a koy waxante loolu nag suñu yoon nekku ci. suñu yoon nekku ci waxal ci loolu nag waxal ci loolu suñu borom moom day atte ñaar ñi xeexut suñu borom day atte ñaar ñi xeexut da ngeen xam ne ku nekk ci ku àgg ca suñu borom koo xam te léppam yàlla la ko jox ak yónenteem di dundal lislaam di yeesal lislaam di defar nit ñi jëm ci yoonu yàlla kooku ku jóg song ko yàlla dana rëq sa ndigg dina dana rëq sa ndigg ca dana la feeñal ma tegal leen waxi suñ abdulaat waxi suñ abdulaat baaridul muntaqimul baari samani léewtoo man moom léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind yu naan kat ñoo ko déggandoo bi ñu jub bi nga xanti bi magal lañ ba paré nak amna ay ostaas ak ay faux imam yo xamni ñu ngi won ci réseaux sociaux di di dal ci yoonu mourid di di dal ci yoonu mourid lu ne ñu koy wax ci yoonu mourid tay nak tay nak yeen seen bir yeen am problème te li seigne mustapha si wax man de duguma ci lama wax deug la wala du deug mais limu wax de lu grawa grawa la loolu daal na ci ñëpp bàyyi xel kon loolu mbokk yi na ci sénégalais bàyyi xel ne suñ Tuubaa suñu borom moo ko ar suñu Tuubaa suñ Tuubaa yonent bi moo ko dooleel suñ Tuubaa l'islam bi mu yor bu wér na ak farata ak gindi nit ñu ñu jëm ci yoonu suñ borom suñ Tuubaa foofu la nekk l'islam bi de ni ko suñ Tuubaa fi ko suñ Tuubaa àggale yaakaar naa ne amul benn doomu aadama boo xamante bi àggale nga ko foofu doon na yonente bi liggéeyal yonente bind ci yonente bi loo xamante bi kenn mësu ko def buñ jógee saay-saay si foo imaam yi ak fay seen booy yi nga xam ne ay saay-saay la ñu nekk ci réseaux di dagg ay vidéo di def ay ñoo bi gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla dañu bu ci yoonu murit lañ nekk naan sëñ bi yàlla la ci sëñ bi moom koo bi moom li mu bind ci yàlla ak yonenteem kenn mësu ko def kooku xam nga ne jàppewut boppam yàlla loolu na ci ñëpp bàyyi xel suñ Tuubaa nag lislaam la ñëpp a ko bokk kenn ëppalewu ci kenn mbàkk mbàkk ëppalewu ci kenn kenn ëppalewu ci kenn képp ku ne a an laa ilaaha illallaah ca muy dëgg ci yow ca nga xam ne diine ju wér moo nekk ci yow ci suñ Tuubaa nga bokk kenn ëpp mbàkk mbàkk ëppalewu ci kenn ëppalewu la ci waaw parce que suñu borom moom ay mbiram kenn ëppalewu ci kenn nangoo liggéeyal suñu borom rek suñ Tuubaa noonu la mel waaw dafa doon yónnente bi loolu nay lu wér la te def ma corona bi nga xam ne ab saay-saay la gis ngeen fu ñu fu ñu gis ngeen fi gis ngeen li leen li leen di war a xamal ne suñ Tuubaa suñ Tuubaa dafa doon yónente bi lii faramason yi di wax yónente bi moom la suñ saay-saay si si naa naafiq si di mbubboo na ay jullit lañ ci duñ ay jullit ay faux imam la loolu la ñuy teg ci liggéeykatu yónente bi mooy moom la teg ci yónent ci ci liggéeykatu yónente bi mooy suñ Tuubaa seen booy yi nga xam ne ay saay saaylet ay góor jigéen ki faramason lañ ñoom lañ financé ñu nekk ci réseaux sociaux yi bu nga ñëwee ci faramason yi ñoom Macron saay saay soso lañ financé ñi daal ci kaw yónente bi kon loolu la day dëggal na suñ Tuubaa mooy liggéeykatu yoonante bi mooy liggéeykatu yoonante bi di ko liggéeyal si lislaam kon mbokk yi loolu laa indi lii leen wax ne gàmmu gi jeex na ci jàmm ak salaam màggal gi ñëw na dëggal suñ tubaa na suñ tubaa moom yoonam wi lu wér la yoonam wi nag amul kenn ku ci ëppale kenn muy mbàkke mbàkke bi muy kenn lislaam la lislaam ku gën a ku gën a ku gën a ku gën a nangoo jaamu suñu borom rek yaa ci ëppale mais kenn ëppale ci kenn suñ tubaa ko kenn ko moom nekul kenn ko mom lolou nay nako nit ñi di leral nit ñi kon mbokk yi loola andi gam gi leral na lu bare bare bare bare bare bare fu imam bobu tay sañatut tutu genn ci radio yi do wax wala bu wala bu waxee dana seug joy dana ruus imaamu faramason khalifa Ababacar Ndiaye say say bob ak say say bob ak ñi nga xanti bi fu foo foo activiste yi nga xanti ay say say lan ak fo oustaz yi nekkan si radio ak ci télé bi magal gi ñuy werante ci affaire werdu wax leen si lii nag lan la ci yàlla wax ak lu ci yónnante bi wax ci li sëñ Moustapha Sy wax man nag du ma ko dëggal mais yéen da ngeen cee war a wax def ay débat wax ci xam ne suñ Tuubaa du seen morom du seen mappandoo du seen mappandoo sëriñ loolu laa leen di wax yéen ñooñu nga xamante bi ay nooni suñ Tuubaa ngeen yéen ñi nga xamante bi bëggu leen Sénégal bëggu leen réew mi fu réew mi tardé rek yéen ko ko yéen a fa tardeel Sénégal ci foo activiste yi saay-saay si duñu ko wax dañuy song ñi nga xamante bi ñoo tax Sénégal jëm kanam ñi nga xam ne ay duñ ay jullit sax loolu dëggal nañ ne murid yi ñoo tax senegal jëm ci kanam bu ñëpp melal ni ñoom Sénégal dina jëm ci kanam kon mbokk yi foofu laay daaneele vidéo bi di wax jërëjëfati Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall dañuy xeex di dem rek kenn mënta tax ba duñu xeex ak saay-saay si ak naafiq si ak faramason yi ak góor jigéen yi ak foo activiste yi nga xamante bi faramason yeeg góor jigéen ñi ñoo leen financé ñu nekk ci réseaux sociaux di mbubboon ay patriote te yàlla xam ne duñ ay patriote ay saay-saay lan bëgguñu Ousmane Sonko bëgguñu réew mi dañu koy mbubboo pour détourner xale yu ndaw yi nga xamante bi dañoo gëm Ousmane songo loolu na ci sénégalais yi bàyyi xel jërë ngeen jëf